gagné ngeen te gaw ma sax ndakaaru dina leen dab alors yaakaar ni mes chers compatriotes de Thiès tay li ma gis de mémoire d'homme politique au moins depuis les années 80. nga xamné ne ngi ci arène bi ba légui mosul am fii ci Thiès kon bu doon élection rek la mënoon naa arrêté campagne bi maa ngi nuyu suñu ay kilifa diine yu Thiès surtout ñaar ñu ci seen yaram xaw a am jagadi muy Serigne Saliou Touré ak sëriñ mu Mounir Ndiéguène ñu ñaan yàlla suñu borom mu yëkkati leen yokk leen wér ak kattan maa ngi nuyu xalif général bu Thiénaba ndax maa ngi ci région bu Thiès Serigne Ahmed Tidiane Seck di nuyu Cherif Nahma Aydara di nuyu nag sama xarit ñëw na ba fii teeru modu karam sëriñ Modou Kara Mbacké Noreyni gis naa mbooloom gis naa taxawam may nuyu sëriñ Astal bi toogal famille omarienne fi si ak Khadim Lo Gaydel Nuyu Thierno Abou Dia soxna Saybata Aydara ak famille Dabay ak waa kër Maam Cheikh Ibra Fall mbokk Thiès tey j'ai compris que population bu Thiès ànd ngeen ak jamono ànd ngeen ak Sénégal pour mouvement bi nga xam ne yëkkatiwaat nañ ko ngir yokkute réew mi ma bëggoon leen wax ni danaa bàyyi xel bu baax baax Thiès ci fi ñu jëm xam naa fi leen autorail toll te gën ngeen a dégg corne autorail eh bien les de fer sera réhabilité loolu mois que sama priorité dès le mois d'avril inshallah. Chez non seulement de de l'eau... son rôle de carrefour ferroviaire mais Thiès un nek un carrefour universitaire Thiès un nek un carrefour autoroutier Thiès un carrefour de réseau électrique danaa leen la vocation minière de la région de Thiès bi ma fi yegg ICS deewoon na ñoo ko Dana ëllëg danaa waxtaan ak waa Daaru xam naa ay jafe ndox yu fa am avec les ICS Dana ko régler di xamal ni l'avenir de la jeunesse de Thiès fii la L'avenir de la population de Thiès file nec. Et vous avez compris cela à travers cette mobilisation Taïbi. fognane naa ne 2024 mbokk Thiès du wax waxu programme tay ndax xam ngeen ni jafé jafe ndox yi ngeen daan am c'est résolu légui li des mo ñu renforcer le réseau de distribution dans la ville de Thiès li des mooy waa mbuurkaat yi nga xamné dañu amone jafé jafé jafe habitat joxe woon naa ndigal gouverneur déjà pour que zone boobu ñu déclassifier ko jox leen ay titre ñu mën a dëkk li ci des mooy lii ngeen wane tey am na solo bu dimanche à la première heure ngeen jóg dem ci centre de vote yi voteel bi mën a suqali Thiès candidat bi am programme pour Thiès am financement pour programme boobule Thiès a trop souffert par le passé xam naa ne dëkku bañkat la waaye nag boo bañee ba xamatoo foo jëm da ngay dellu fa nga jóge woon te ànd ak ñi ànd ak jamono loolu leer na a choisi et encore une fois aujourd'hui Thiès est tombé kon maa ngi nuyu qui dit église bi moi monseigneur André Gay, évêque de Thiès membre à toute la communauté catholique de Thiès